Et que Monsieur Fay est arrivé Je vais l'appeler tout de suite, Monsieur Ba. Là, je meurs de chaleur, là D'accord, tout de suite. Monsieur Ba, bonjour. Monsieur Fay. Alors, euh, je viens de proposer le meilleur des verres pour maintenir la fraîcheur dans ton bureau. Et en plus, il est excellent pour l'économie de la consommation électrique de ton climatiseur. Parfait. Cependant, celui-là, il faut s'en méfier.

waaw xanaa sant ak gërëmati rek dañu ñëwoon rek ma ànd ak bureau municipal bu ville de Dakar ak conseil municipal ñu ñëwoon doon indi suñ contribution ci événement bu mag bi di xew Dakar lu rëy lii nga xam ne Serigne tuubaa moo ñu ko may ñu ñëw samp ko ci digg Dakar soo amee lu mel nii war nga def lu rëy kon lépp lu ñu def rek xeeb nañ ko àddiyee rek la barkeelu kese la xeeb nañ liñ fi indi waaye nag ñu ko waxee commencé woon nañ bu yàgg avec le maire Khalifa Ababacar sàll ñu continuer di ànd ci liggéeyu jumaa ji ba tey jii ñu koy inauguré lu mel nii nag bu amee sa capital dafay bokk ci sa mobilier urbain mooy ku fi ñëw ndakaaru da nga ne il faut ma dem Massalikul naan visité ko ndax taar bi ci nekk li ñu gën a ci événement bi mooy teeru biñ teeru xarit général des Mourides nga xam ne dañoo nettoyé dëkk bi yëpp te man ku ma dégg soo am ville propre dakaar ville propre xalif bi war a ñëw taalibe murit yi yëpp nettoyé dëkk bi ba mu set wecc di ko cuuraay di ko parfumé dama bëgg loolu mu wàll karti yi nekk ci dakaar yëpp ñu taas ñu ci barke jumaa ji tey ba nga xam ne Dakar yëpp wax dëgg yàlla dana mel ni bërëb bii ni mu mel tey may sant ñëpp di gërëm ñëpp